gën a bëri bruit. kii du la de. donc am na xale yoo xam mm. loolu kenn mënu ko yàllaa koy mën. ma ne daan nga gis kenn kilifa eh, mu yor ñeenti soxna ñoom fukki doom ak juróom soo génnee kajoor bi wala mbalu waaw. génn kilifa mais bien. waaw day fekk dëkk ba. waaw mais Dakar ay appartement moo fi ne. ak ay waxuma fii de. waxuma fii de fii. fii waxuma ko de. man gis naa fi koo xam ne appartement ndaw si amul moyen euh, waa amul moyen pour jël beneen mu nar a jël beneen néeg. mais ndaw ñaareel bi moo ko ne bul jël beneen néeg. bàyyi ma ñëw ci appartement bi jël benn néeg bi nga débrouillé ba keroog ngay mën a jënd kër. wallahi Dakar gii nii te intellectuel la ndaw si ñu ngi jàng. dama ci am ay jabar daal boo leen mënta yor bu leen takk. man exemple bi may joxe. je damay partir si sama propre expérience. Mm-hmm. sama pap ñaari jabar la am. waaw ñu màggee ñu ñëpp ci benn kër. Mm-hmm. et que boo joxee exemple ma ma sama benn doom baay jubóowuñ mosuñ jubóo mais loolu en général du ñu def sax pour sama pap gis ko. Eh, maire yi kenn ki sama yaay laa koy woowee te du sama yaay keneen ki tata laa koy woowee mooy sama yaay mais nun ñu yaree li ñuy xuloo lu ñuy xeex en général su papa naree wàcc papa warul fekk ñuy xuloo wala ñuy xeex papa war nañu fekk ñu disponible ñun ñëpp xale yi si kër gi lu ñu doon njëkkante papa buy seetaan télé ñun ñëpp ñooy toog si tànku papa hmm. toog di waxtaan ak moom di commenter actualité même bu ñu xuloowee parce que comme dañuy toog ci kanu ci wetu papa di seetaan télé ak papa di commenter ak papa waruñ gis ne dañoo xuloo mm. dinañ def hypocrisie ak nu mënti demee papa bu soxlaa dara balaa moo pare kenn si ñun dina jug daw def ko loolu lañ doon njëkkante mm. papa bu yónni pharmacie dañu doon xëccoo di ko xeex kuy war dem pharmacie c'est vrai que dañu doon kottu weccit bi moo taxoon kii la mais loolu noonu c'était c'était du loo xam ne dañ xaw ma ndax dañ ñu ko forcer wala noonu mais c'était automatique parce que xam nañ ne suñu papa bu wàccee dal la bëgg fekk ci kër gi donc dal la fiy fekk lu ñuy xuloo lu ñuy mel lu ñu mënti mel état d'esprit bu ñu mënti am peu importe papa bu excès tout le monde doit être calme bu 5 heures jotee dañuy seetaan suñu dessin animé papa bu excès seetaan dessin animé ak ñun bu ñu paree ku nekk yor sa livre mairie bu ñuy toog di tricoter mairie dañuy toog di tricoter ki aye li jënti li ñuy lekk ka ayewul toog ci kanamu télé bi di seetaan te ba léegi ba nu ñu màggee noonu noonu lañ dundee même si je suis archi contre la polygamie comme nous en discuté avec. ah ouais <laughs> bu ko wujju déedéet <laughs> bu ma wujju déedéet bëggul <laughs> yeneen morom yi nekk ci biti nag kenn bëgg fi wujju ñi nga xam ne ci biti am na ay jeunes yoo xam am na ay jeunes yoo xam ne ay célibataire lañ leen takk jabar ah. mais ñi ñi wax droit xam war nañu wax ci ah. uh-huh. am ci ñetteel boo nekkee ñetteel doo am ñetteel ça c'est normal mais pourtant kii góor gi da nga ne góor gi góor loolu jamono góor gi la xam nga moom peut-être xam nga jikko joolaa bi moom la jël imposé ñëpp ay jabaram nangul ko joolaa de daawul bañu wujj bi ngi yëgul léegi jabaram yi nangul ko loolu mu mun am ba léegi parce que ba léegi même ñun xale yi bu fekkee xale yi ñëpp génn nañ ci kër gi ba léegi ñoom ñoo dëkk moo xam ñaari jabaram yi ñoo bokk kër. Mm-hmm. mu ñuy gérer nu ñu waree gérer. et puis màgg nañ ku nekk yaa ngi def ni ñuy def. mais ba léegi ñoom ñoo dëkk. sama mag sama mag bi ma bokkal bàyyi li muy wax mu ne ñaar ñett ñii moom dañoo dem ba ku ku ku génn sama morom dalay manqué nga dellu si. ndeysaan jubóowuñ parce que ay wujju des fois jubóowuñ et tout mais terewul. jéemuñu dugg ingérence si suñu diggante ñun doom yi. Mm-hmm. parce que ñun ñëpp li nga xam ne moom lañ ñu defal moom lañ ñu xamal. Mm-hmm. mooy ñun ñëpp ñoo bokk benn baay. waaw waaw foo mënti dem loo mënti kii bu da ngay gis sax ke boo xuloo xulooweex kenn ki ñun ñëpp même sur les réseaux sociaux ñëpp dinañ ñëw def mët. xeex xeex bi même si bu ñu juboo wuñ de du ñu wax sur les réseaux sociaux ku nekk bloqué moromam mais heure xuloo bu jotee dinañ ko ñëw xuloo ba pare ku nekk fas sa kanam aju doo ko voilà ah. te te loolu bon après je peux dire que posture bi nga xam ne peut-être papa amoon na ko moo tax ñu doxalee noonu oui il est responsable. oui il mais responsable. mais euh, organisé. góor yi nga xam ne dañoo irresponsable. Euh, euh, exemple bi nga doon jox sànq ni ngay waxee par exemple ni ñuy àttee conflit ñun fàttaliku wuñ foo xam ne dañoo gis suñu paap mu naan dafa taaj maire yi pour wax ak ñoom ñun ñun xale yi ñun dañ doon dem papa promenade ku si nekk am nga ay période yoo xam ne au hasard la ko doon tànn day xool ku disponible buy dem congé wala buy voyager yéenay ànd c'est l'occasion ku nekk di nga ko wax lu la metti ngeen toog ngeen waxtaan. parce que moom il est très démocrate moom sama ba léegi loolu lay wax bu bu il se vante du fait que moom day wax doomam yi contredire ko mais day toog waxtaan ak ñoom jàppul ne il a la science infuse que moom lu mu ñu wax loolu la ñu war a moom dafa jàpp ne moom dafa nekk ci àdduna. pour la communication comme ni mu ko waxee fi mu nekk nii ñun ñëpp ay mag lañ tey daf ñoo yar. xamel xamal nañu le bien du mal def diine si ñun dugal ñu dans les meilleures écoles mm-hmm. li nga xam ne moom la ko moyen may mm-hmm. muy toog aussi di waxtaan ak ñun ba dès léegi wóolu na suñu capacité de jugement ba moom sax mun na jël décision ñu ne ko noo papa tu as tort mu d'accord mais loolu nekk na loo xam ne c'est c'est difficile aujourd'hui pour ñenn paa yi ñu accepter ko mm-hmm. exemple beneen bi ma sànq père Mangoni muy wax ba joxe ñu ne ko papa tu as Père Mbaye Mbaye Thiator sànq xaar rek laa ko bëgg papa dégg li papa non nga ne non papa tu as tort ni ko xalaatee waaw ma accepté déedéet papa boo waxee loolu mu ne la papa waxuma leen nga ne ma dama sa morom papa Thiator ah xanaa ñi waa bon la. du nee na d'accord ñu dab. léegi donc je euh, la parole à bi nga xam ne moom la pa moom la père Mangone doon wax sànq. Euh, bi ñu nekkee woon pour Sainte Marie de Anne. suñu benn prof de de philo li mu ñu doon wax. mu ñu doon wax ne waajur yu bëri nga xam ne dañoo bëri daraja am koppar bu bëri dañuy dem ba fàtte li nga xam ne mooy l'essentiel pour seen doom. le spirituel ak peut-être présence bi nga xam ne soxla nañ seen waajur yi nekk ko parce que ñëpp dañuy jàpp ne affaire yi alal kese la di nga jël def en sorte sa doom nekk dans de très bonnes conditions appareil yi nekk à la mode nga tegal ko et mais doo leen am benn relation du mën a waxtaan ak yow du diisoo ak yow te nee na chaque fois dañu doon ñëw par exemple di fustiger le fait que yenn élèves yi du ñu am moyen alors que tout est mis à disposition pour que ñu am yenn kii yi mais moom ce qu'il tenait à le rappeler le temps que xale du koppar rek dafa laaj présence ngeen di daw pour am lépp lu ñu bëgg di yóbbu sa doom muy vacances yi Paris muy vacances yi États-Unis et tout alors que sa doom mënul amax ak yow sax toog ngeen toog mhm. ndekki waxtaan loolu c'est problématique mhm. voilà te fi mu nekk nii Sénégal je pense que loolu mooy le plus difficile trouver l'équilibre parce que ñëpp a ngi daw di wuti dërëm bu ñuy daw di wuti dërëm ñu ngi fàtte aussi njaboot gi dañoo war a jël temps pause di waxtaan ak ñoom di sottante xalaat ak ñoom ngir gën leen mën a kàttanal ñu mën a faire face aux défis yi nga xam ne moom la ñuy jànkonteel ci jamono ji. mooy li nga wax Régina programme ak famille ñeent ànd yéen ñëpp. boo ko waxee tam ñu la lay wax Sénégal te dafa am importance. effectivement. ça vous permet ak say bi. parce que ñi ñi ngi jàngi xale yaa ngi jàngi papa ak yaay ñu ngi liggéey. mais essayez de trouver benn moment yéen njaboot bi yëpp ngeen dem vacances dem fii ci Sénégal dem xam nga là vous aurez le temps de discuter. en dem laal cap screen ñëwaat oui ma jox naa la kàddu gi jéem a Samba. merci beaucoup madame Diallo. affaire mhm. yi nag bëriwul boo tënkee ma jël si vous plaît. je suis mm. rek.